لكن البيع هل تأثر أولياء خوف من من ذكرنا التقليد في التقليد بمن سلبت الدم بعد السعي بمر الصالح بتلاقى لو لبس انتلاقى انتلاقا بسبب السنة لكن

Sëriñ Mouhamadou Mourtala moom Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy wax ci sama tur. su ma doon wax kàddu bi Sëriñ Cheikh Ndindi. ñun Alaaji Mouhamadou Lamine Ba mi nga xam ne mooy woo bokk yëpp. su ma doon ñu jox Sëriñ Xaadim Gueye. sëriñ bi Alaaji Mouhamadou Lamine Ba di Baye Salam mi nga xam ne mooy wax ci tur benn yi. su ma toog dañuy jox Sëriñ Mouhamadou Ndiaye chef de village. mi nag mu woo bokkam yëpp. xaritam yëpp ak ñun bokk yi di liggéey ci Touba. su ma toog ñu jox Sëriñ Cheikh Sëriñ Bousso. moom Sëriñ Gora Bousso moom Sëriñ Ndiaye loolu sëriñ Fàllu dama ko leeral sama tool ñu jox ko sëriñ Abdoulaye Jaxate ñun alaaji sëriñ Jaxate sama tool ñu jox sëriñ Fàllu Jaxate Kaltoum mi nga xam ne moo ko rakkam yi mi nga xam ne ñoom Cheikh Mouhamadou Moustapha ak liggéey bépp teg ko ci seen loxo ñu leeral ñu bis bi ñu tënk nga ak fan lay doon ak nan lay tëdd te ñun ñëpp ñu ngi déglu sëriñ Bara ñun sëriñ Cheikh la sëriñ Cheikh Abdoulaye ma fas yéene wax ci tur turandoo Cheikh Mouhamadou Bara ñu jiital sëriñ Bara moom sëriñ Abdou Fatah Fallou ndax sëriñ Ba moom sëriñ bi xel na képp koo xam ne dañ laa Bara wala nga am doon tudd ko ko moom lay woo ci bis bii nga xam ne moom lañ a ni fii ci àdduna noonu lay jar nga koy xam ne moo nekk baax moo tax na asibdaai yanfau mawtan fil xubur wa yanfau alxaya wa yujibul ujur loolu tax na sëñ Moussa di sàkk si mbooleem ci mbéy ak bépp jullit bu doon nga jàng ñetti tomb alquran def ko xaddiyee Cheikh Mouhamed Lamine Bara kon loolu moom lay sàkk ji kuréel yi dañuy wax ci turu ci turu dongo yi ci ndigalu sëñ Moussa Royal Sangha Ketahui Suci Ketahui yang yang ini yang itu kemarin, dengan semua ini ini ini ini ini ini Akhirnya dinyalakan kopi dengan sumber minyak alam dari sebagai menjelajah juga menjelajah menjelajahnya filipin solum pilihan dengan bisa menjelajah kalau tidak memulai dan dia kami gambar dengan keimplasan itu sulitan lumayan solidar mulai gambar dia kami mulai gambar dia jatuh gede boo xëyee saxal semaine lay dem mooy borom intervention yi ci lekk yi borom intervention yi ci téléphone yi bu borom intervention yi ci wàllu même ci dund ñu dem ñu def kon suñu baara mooy toog suñu baara mooy ki nga xam ne bu ñu fi nekkee dafa waxoon ne dafa nekk mbir yi ñoo ko fi def kon nag nañ jàpp mbir yi te di leen jàppale

mais fa ñu nit ñi fi nekk ñoom ñëpp bu ñëwee ñu dalal leen ñu yaatal leen te àndoon leen ci liggéey bi man daal mooy yoo xam ne man waa doon wax xalaat man war a mutlaa daal dal ko ci suuru la bokk suñu daal bu sëkk suñu gëdd bi suñu nekk ko boobu dara dal ñu ñu ànd ak suñu baay ñu dal ñu mooy sant ak ngërëm boo xamante nii xam sëriñ Maodo bi ko ñu ngi ndax kon daawale couleur bu réer yi ndax jëmmal bi jëmmale bis bi sëriñ Maodo ndax ku nga ni eh, mbir yi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Amine Ba taxawe na ko fu dëgëral lépp la fa relation bu dëgëral famille bi bu aadama xam boole seen ak dëgëral kàddu yi nga xamante ne nii لأن يشتبه في الدين ده خدود الإسلام خلني يقطع على مستوى الخدود المسلمين كلها بق بقل ولما تفهمهم الأمين دار رضي الله عنه دخلوا اللي يحضنه الكلام ما بدأت أبوي قد يتوى وحنا من كهلاجي فالكل كل رجل ينتظر لك ما تحاول تنام تحاول تنام كل ما تنام ينام يقوم بالانتفاق لكل بكرة بالجيش هذا بس ده هم تقوم بالله mbirum bu ko laal lu mu tuut rek mën naa defar ko àdduna si àllaaxira moo tax li ci mën lépp lañ ko def man ñaan yàlla subhaanahu wa taala ni ku dàq Seexul Xadiim mu réussiral mbir mi ndax lii dafa bokk ci li nga xam ne moom la islam gën a yittewoo te mooy jokk bu mbokk ak fàttaliku gars yu baax yi ndax kon famille bi ñoom ñëpp ñu ngi woon mboolem waa Missirah waaye rawatina nag waa Cheikh Mbacke Bousso ak mboolem taalibe yi ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci biir réew mi ak daayira yëpp ñu xam ne comme Cheikh Mbacke Bousso ñoo ñu woo li ñu ànd ak famille Cheikh Mouhamadou Lamine Bara taxaw ci ببدا يتنمى على الطلب مباشر تنبع الجانب اللي حدث لك الانف اولا واخيرا من شكر وتقدير من سمح لك انظرا ما لم يدخل له انت امنكم امنكم كما اعتبر امنكم يوم ندخل بحرا الشيخ محمد بن البحر حدد لك غيرك فورا بدأ الخليفة بن محمد بن سفيان يقول لك الباب تنبه بودون حنا يمكن بين يوم بتدخل لكم لا لا لا لا حول ولا قوة الا بالله ومن شابه اداه فلا يسلم لا ارضه من كل يوم بعد كل يوم من يحب ان يكون يجب ان يستطيع بين ضغط التنميه waaye loolu loolu njëkk la lu ci dëng nag ci man la ndax dañu damay xaw a def ci tamit tamit ci la fi bëggoon rek ci ci seen njaboot ak njaboot bi yëpp lañ fi am mbégte te wooteelu bi yëpp daal loolu rek la ñu waxoon nekk ko kon salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu léegi

xamante ni ñëpp ay bopp ko jëm ay yi mbokk mbokk mbokk soo dee nekk seen xam di bi jot la woon dañu ñu koy soññee ci tur Serigne Moustapha day fàttali rek li nga xamante ko Serigne Badiane ko ñaanal rawatina muy li nga xam ne moo ci di ko moom alxuraan li nga xam ne sose na ko sose ko njaboot bi te di ko sàkk ci turandoo yi nga wax nañ wax nañ ko léegi ñu ko ak ngir leneen dañ koy sàkk ci bépp sëriñ daara ci biir Tuubaa ci biir réew mi ak foo mën a nekk ak bépp ak jumaa ak jaayekaay bu nekk ci biir réew mi bis bi ko jiitu muy le premier surtout sëriñ daara waxtaan wi ñuy def te dëppal suñu abdoulaye moom la soxla moom Fadel di wàññi dafa lay sax sell bis bi nga xam ne nag mooy bisu sëriñ Daara bi ñaar ci njaboot yi ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu tànn tey ren ngir fàttaliku leen ci te ku leen tudd ci si sëriñ Daara rek mooy sëriñ ñaari Bousso mooy sëriñ Bàkke Bousso laa ba sëriñ am wala sëriñ am a jaxate loolu li ci sëriñ saxa jublu mooy sëriñ xamoon diggante sëriñ Bara ak njaboot boobu te loolu lépp dalee dañu jotaat ay kàddu yëgle di ko jëme ci nga xam ne mooy njiitu réew mi ak président di ko yëgal bis bi ngir di ko yëgal parce que bopp réew mi dañu jiitu Sénégal yëpp dañu bokk ci biir réew mi bokk ci Sénégal yi nga xamante ni suñu lay bëgg ñu bokk ñu bëgg ko yëgal tamit si bopp gi ñu bokk si njaboot ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fally di ko fàttali tamit premier ministre Mouhamadou Boun Abdallah Dionne am na ñu dégg gouvernement bi yëpp di ko yëgal président Moustapha Niasse bi nga xamante ni moo jiitu Assemblée bi dañu si bokkal ci yëpp depende del régimes totalement régi maîtrise de la pression économique sociale et environnementale pression dafa yëgal ne bépp parti politique boo xamante ni bii dañuy fi ci tuddee président Abdoulaye Wade mën na ko tudd ci réew mi parti politique ci biir ne mouvement dafa mën a nga taxawal ko moo tax nga koy yëngu suñ dañu ko soññoo woon rek taxawaay yi nga xamante ni moo war diggante sëriñ bi la ñu am ko taxaw ci biir kër tarixa yi nga xamante ni nekk na ci biir Sénégal te bu ñu tuddee tarixa yi bu ñu ci tuddee wàcc sax si des na ñu mën a yóbbaale njabootu lislaam bi nekk ci biir loolu yëpp ak suñ si mel noonu rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew ci sous-région bi ak bi ñu nekk te bu ñu tuddee Gambie te du Mauritanie te du dëkk yi ko wër yëpp ñun loolu yóbbaale ci affaire a pour ñu tuddee bitim réew te di France Italie Espagne Allemagne ak yi ak yëpp dañ ko a pare mbokku ji bi dafa nekk ay dëkk taalibe yi ay musaxaar ñoom ñu ngi leen di sëriñ bi di leen yëgal bis bi bis bi nag ñu ngi koy xewoon lu turaa la ñu ngi ñaan yàlla nañ si yàlla yóbbu ci jàmm nañu lépp la xewoon ci ñu ci sàkk ci ay ñaan la mu jëm ci soxante la ñun yal na ko si yàlla jotale ndax soxna ak ñun salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh soo na alaaj Mouhamed Lamine Bara yaakaar na yàlla mën a jàppale na ko doole na ci ñëpp war na réew mi fàttali leen toog ci tubaab ak seen soxla du fa nangu noonu nag talaata lay doon yàlla na nekk xam ci war naa doo amee fii ci këram bii di àdduna loolu naan ku fi taw yàlla nga dugg ci sagal Cheikh Mouhamadou Fadel boobu nga xam ne mooy dafa xam fadaa yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.